mbokk yi ñuy déglu suñu yeneen tëb juróom-ñetteel xasabal quraanil karim moo di lóot xam nga lóot doomu mbokki ibrahima la ibrahima bàyyi ta xam la moo tax wala maa wii ne huwa la du haaraan bare dëkk la haaraan bi tur la ibnu axi sayidina ibrahim alayhim assalaam wulida bi madinati harraan العراقية فآمن بعمه إبراهيم وهاجر معه إلى فلسطين ثم إلى مصر لمجاعة شديدة كانت فيها ثم رجع إلى فلسطين مرة ثانية بعد برهة من الزمن ومعهم قطعة من الماشية التي أهداها لهم ملك مصر آنذاك taarix daf ñuy waxal ni Lóot Haaraan a ko jur Haaraan ak Ibrahima yëpp Azra leen jur Haaraan ibnu Azar ak ibrahim ibnu Azar Haaraan moo jur Lóot magam la rakkam la mbokkam la daal ñu nga dëkkoon ci dëkk bu naan Haaraan ci Iraq moom nag Lóot moo gëmoon baay taxam rakku baayam gàddaay ànd ak moom dem Palestine demak moom Égypte xeef sonal leen ñu gàddaayaat jóge Palestine dem Égypte ba ñu amee dara nag ñu dellu si ndax buur ba da leen a may ay gétti gétti béye ki xar boole ko Ibrahima ak Luut ne nañ dem di ko sàmm jàpp ci xam nga yeneen yu bari sàmm nañu xam nga moom xéewal a ngi dalee ci nga am ab tool ca àll ba am ay béye ki xar rek féeteeg ñoom génn ci coowal àddina li génn ci coowal àddina jaamu yàlla sàmm say gàtt bay sab tool lekk ca lekk ci soowam gàtteeg seen yàpp jaamu yàlla jàng fa jàngale ca wala dina yëpp nga gédd ci loolu saada aadala muy taxe googu nag nga xam ne yàlla jox na ko ibraahima ak Luut ba léegi ku ko am rekk jël kon Ibrahim histoire ne na bariwoon woon na ay gàtt daal Luut it bari ay gàtt waaye ñoo dëkkoon ci benn béréb léegi nag léeg-léeg xuloo am ci seen sàmm yi Ibrahima gis na daal luy maslaa bi mooy ñu séddoo suuf si daldi di séddoo gàtt yi te yàlla it yónnil ko doomi mbokkam mi mu jël mission bi dem doxali ko foofa foofa nag loolu mooy xikma ci ñu seddoo suuf si Jordanie dal di jël suuf si Jordanie féetale fa Lóot Ibrahima des Jérusalem Cham foofa ci diggante Sadduum ay dëkk la yoo xam ne ne nañ juróom la wala juróom benn la muy Sadduum foofa fa la Lóot dëkk ma ngay moom loolu lim la ñuy tuddee tey Amuura ak la ko wër moom la ñuy tuddee tey Amuura ci Jordani ak la ko wër fa lañ yónni woon Lóot mu dàq ay gàttam féete fa bàyyi Ibrahima Cham wala bay Ibrahima Palestine dëkk boobu ñu naan sadd um ah ñu fa dëkkoon dey ñoo gënoon a dëng ci li nga xam ne histoire xam na ko ci nit ndax dëngoon nañ bay jett natiiru yàlla bi ñu koy safaane ñu ñaawoon ay jikko lañ ñu mënoon a weddi lañ dañ daan dem ci pénc ma di fa def aw ñaawteef mu di loolu ñuy tuddee ak ngóor jigéen ba far nag far nag ñu tuddee leen ko kuy defati jëfi góor jigéen ñu ne jëfe nitu loot ya wala loot ak liwaat yi demee ni ki waaye kenn mësul leen cee jiitu alquran moo nu wax ni problème mu góor jigéen kenn jiituwu ci xawmu loot ñoo ko njëkkee ci àddina moo taxoon yàlla yónni ci ñoom loot jox ko mission pour mu jubal leen ndax ñu bàyyi jëf ju ñaaw jooju ndax mu jubal leen ñu jëm ci siraatul mustaqim ndax itam mu wattandiku loo leen mujj ak def aw ñaawteef woo xam ne yàlla daf koy aaye nee na noonu la yonteela luut tàmbali leen woo ci gëm yàlla ak am njub di leen wattandiku loo mbugalam yàlla ëllëg mu sàkku ci ñoom nañ ñu déggaay ndigalam bàyyi ay tereem ndax moom kat mérité loolu ndax wutal ci ñoom ak pay wutal ab yool dafa bëgg daal ñu jub ragal yàlla mu jàjjaleen ci def lu bon ak jéggi dayoo bu leen na natiru yàlla bi bu leen ko walbati di dem ci ay góor te bàyyi ay jigéen bu leen def loolu mbokk yi kon dañ ci def siwaat ci kanam tuuti nettali xisab xisab loot ak lan lañ ci war a mën a jàngee Eh, kon ñu noppalu ba ca kanam ñu ñëwaat bismillahi rahmaani rahim mbokk yi ñuy déglu toon te doon déglu waxtaanu suba ci rajo wal fajiri fm 99 noo ngi wee yéen ci loolu ñu doon wax rek muy yeneen tab juróom-ñetteel bi di luut alayhi salaatu wassalaam luut la yàlla yónni ci kàccoor yi wante mënut ci ñoom dara weddi nañ ko bañ nañ ko kadabat qawmu luutin al mursalin id qaala lahum axuhum luutun alaa tattaquun inni lakum rasulun amin fattaqullaha waaticuun wa maa asalukum alayhi min ajrin in ajriya ila ala rabbil alamin ataatuuna dukraana min al alamin wa tadaruuna maa xalaqa lakum rabbukum min azwaajikum bal antum qawmun aaduun qaalu la in lam tantahi yaa luutu latakuunanna min almuxrajiin qaal inni li amalikum min alqaaliin cent soixante surat Shuara mbokk yi ñuy dégg yonent yàlla Luut alquran moo ñu nettali ne ku sonnoon la alquran moo ñu nettali ne woote bu métti la doon woote mu ne waaye nee na leen bañ ko weddee mu ne ah maa ngi yéen day ñëw bokk kan nit leen rek dëkk ci gox bi le xanaa du ngeen ragal yàlla man de yàllaa ma yónni ci yéen ragal leen ko te topp ma xam ngeen ne mérito naa ngeen topp ma loolu lu jara insisté la nee na mérito nañu topp ko ndax topp gi ñu koy topp laaju ci kenn lenn laajuma addiyee béy lu moom ñoo leen ñu ànd jàmm yàlla rek moo tax alquran dal di ci insisté bu baax nag ne ne man dey wa ma asalukum alayhi min ajrin in ajriya ila ala rabbil alamin su fekkoon ne dama leen a bayloo wala ma gorloo leen ma sas leen ma laaj leen xaalis bu bari kon ngeen di wax ne looloo tax duñ la topp waaye yéen amu leen wenn lay ndax man laajuma kenn leen ñëw leen ñu jub bokk topp yàlla rek ma asalukum alayhi min ajrin in ajriya ila ala rabbil alamin am na solo loot ne leen yéen yéen a jéggi dayoo tax ngeen di dem ci ay góor te bàyyi fi jigéen ñi yéen daal dëgg dëgg dëgg yéen a dem dayo wala yéen a jéggi dayo boobu bal antum qawmun aaduun ñu ne ee eh, loot sa caw bari na ñun daal li ñu xam mooy boo bàyyiwul li ngay wax ak li ngay coow daan la génne dëkk bi mu ne ah du ko baree ndax man seen jëf ji ko ko bañ la gannaaw discussion bi dox diggante Luut ak nitam ña te mu xóot lool te mënul fexe ba convaincre leen wala mu génne leen ci li ñu nekk xanaa nit ña koy gën nañoo nuur ci ak gën ak topp ak ak dëng ñu ne yonent bi daal léegi bu fekkee ne ku jubut ku la topp dañ koy mbugal mbugal mi na ñëw léegi fekkee wax nga dëgg fekkee li ngay woote ci yeneen te dëgg la mbugal mi ñëw loolu la alquran di wax naan wa luutan id qaala li qawmihi innakum la taatuuna alfaxisha maa sabaqakum biha min axadin min alaalamin innakum la taatuuna rijaala wa taqtauna sabil wa taatuuna fi naadikum munkar fa maa kaana jawaaba qawmihi illa an qaalu itina bi aadabillahi in kunta min alsaadiqin bam na leen ak góor jigi ngóor jigéen yéen a ko fi njëkk indi bam na leen yéen a jéggi dayo bam na leen li ngeen indi ak ko njëkk a def ci kaw suuf te yemu leen ci da ngeen di nekk di addu kalpi nit ñi di doge aw yoon te lu bon lii du ngeen ko def ci néeg sax ci pénc ba ngeen koy def xam nga luñ ko tontu ñu ne hey mbugalam yàlla boo ko amee na ñëw boo waxee dëgg ay jooju 28 la ma ngi ci suratu al-Ankabut mbokk yi ñuy dëgg yonte yàlla Luut alayhi dund ak def ko ci bàkkaar yi ñuy def ñaawteef wi nga xam ne ñoo koy indi ci kaw suuf mu tasaaroo ba jéggi dayo léegi te ñoom bañ koy def ragalu ñu amuñ gàcce te cépp ku koy def doo doo ragal doo am gàcce képp kuy def ngor jigéen xamal ne doo ragal doo rus ndax loolu moo amoon ci cosaan waaye yëguñ lu moy yàlla bëgg a jeexal moomu mbir ci la yàlla wàcce ay malaaka ci Ibrahim ñu romb fa nag waaye ñu nga jëm Palestine Ibrahima ak jabaram sonn lool ci ganale leen waaye ba ñu leen wàjjalee yëkk wu ndaw wa tegal leen ko lekkuñu booba lañ xam ne ñii kat duguñu ay nit ay malaaka lañ ah booba Ibrahima tiit na li ko tiital mooy xam ne ne malaaka du wàcc mukk lu moy mbir mu yitteel mu mag a xew Ibrahima tiit jaaxle ah mu ne leen man de tiit naa ndax yaakaar naa ne da ngeen a wàcc ngir alak aw nit ñan ngeen di alak ñu ne nit yi lóot mu ne waaw nu ngeen koy alagee te lóot a nga fa te yàllaa ko yónni mu ngay woote jëm ci yiw ma ngay digli lu baax tere lu bon malaaka yi ne Ibrahima bu ci sonn ñunu xam nañu ña fa ne xam nañu dañuy def ba alak ñuy alku waaye ñoom ñëpp dana leen alak loolu sa doom daal dana ci mucc moom ak képp koo xam ne gëmoon na yàlla ànd ak moom waaye yëgal ne jabaram ji day seen mbokk la waaye moom day alkude ndax dafa war jëkkëram ñaawal ni mu àndeek moom xam nga war sa jëkkër mooy dem ci yeneen góor ya ñaawal nañu àndeek moom mooy doo topp ndigalam doo bay ay téram moo tax loolu yàlla wax na ko ci alquran wala ma jaat rusuluna ibrahim bil bushra qaalu inna muhliku ahli qarya إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كان من الغابرين kooku aaya 30 la ba tey ma ngi ci Ankabut ulamaa yi ne nañu malaaka ya ba ñu wàccee ci lóot ñeent lañu ba ñuy ñëw ñu ngi ñëw ci melokaanu ay ndaw yu toyom toyom mooy ku saxagul sikkim ñu ngi nekk chubbaan murad xisaanal wujuh wal haya rafet lool jekk lool set wecc nag soxaguñ sax sikkim xam nga ñoom dañuy gën a xiir nitam ña ci songa gune yooyu ndax gune yooyu leen doon wut ah bañ leen séenee nag lootu nag moom réere na dëgg-dëgg gune yi xamut lu ñu doon moo tax xaw naa tiit xolam tàng lool mu ne man de xamu fu ma jëm tey gan ñu góor surtout ay waxambaane yu toyom ak sama nit ñi ni ñu demee dayo ni ñu jéggee dayo nga xam ne góor lañuy bañ a gis gu rafet man de xamu fu ma jëm mu ne tey day bés la bu jafe ci man bés bi ma am ay gane gone yu góor bés la bu métti ci man foofu rek xibaar ba tasaaroo ñu ne loot am na gan yu góor ay waxambaane yu rafet mujrimoon yépp def ko ci bàkkaar yëpp daje ñu tëral nag seen xitta fi ñuy war a jaar xitta cheytaaniya pexem cheytaane waaw wa makaayidam al ijramiya ñu gaaw nag jëm ca gune yu góor yooyu ñu ngay sàkku nag aw ñawteef ca gan yi tedd yooyu lootu nag booba la xam ñoom li ñu bëgg booba la xam li ñuy jublu mu ne leen man am naa fi ay doom yu jigéen te ngeen ñëw takkaleen yóbbu ngeen bay góor ñi de te ngeen bàyyi ñaawteef yi mu ne loolu nag ñu ne ko jëmal fale ñun xam nga li ñu bëgg ëppoo ñu jigéen am nañ jigéen ci kër ga waaye soxlawuñ ko mu ne waaw xanaa kenn ko am xel boog nekku ci yéen koo xam ne bu nit demee ba jaaxle ñaan ko njëkk dana ko xam nga ko am xel buñ la ñaanee njëkk da ngay da ngay maye ku am xel bu leen di waxee da ngay seetantal li muy wax ku am xel bu ñu la wooyee jëm ci dëgg da koy dégg ku am xel bu la nit ne bu ma tooñ doo ko tooñ dangay jaju jajju ci ñaawteef waaye ñoom faale wuñu ko sax ñoom daal dañ koy yedd rek ne ko yow daal xam nga li nu bëgg sa doom jigéen yi soxlawun leen xam nga li ñuy wut loolu daal Alxuraan nettali ne ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا قال هذا يوم عصيب وجاء قومه يعره يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا laqad alimta ma lana fi banatika min xaq wa la taalam ma nurid qaal law anna lii bikum quwatan aw aawi ila ruknin shadid ila axiri l aaya sabaa wa sabiin min surati bu mu amee gan yu góor xolam tàng na jeex na takk naqari na mu ne tey bu bés bu jafe la ñun ñu ñëw nag gaawtu rek jëm ca waxambaane ya ndax balaa ñuy ñëw def ko ti ñaawteef ñoom mu ne leen sama doom yu jigéen yi kaay leen mu may leen bu fekkee loolu ngeen bëgg a def ragal leen yàlla te bu leen ma gàcceel ci sama gan yi xanaa ku jub nekku ci yéen ñu ne eey xam nga ne soxla wuñu sa doom yu jigéen yi am nañ ko ci kër ga yow xam nga yow xam nga li nu bëgg mu ne waaw ca yàlla ca la lootu ne yàlla man dey su ma jege woon ay doomi baay ak geño su ma jegee woon sama baay Ibrahim ak doom ya Ismaayil ak Ishaq ma am sama doomi baay yoo xam ne su ma jógee ñu jóg ci ngir mu am solo ngoogu sa Hasan gis nga nit nit ibnu ammihi wa axuhu nit ku ne sa doomi baay tax ki nga bokkal baay wala seeni baay bokk mooy sa mooy sa mbokk soo meree mu mer soo jógee mu jóg loolu lay junje ci aaya jolo nga ci mën a jàngee mu ne leen law anna lii bikum quwatan aw awi ila ruknin shadid ah, su ma wéeru woon ci géño gu dëgër am ay doomi bàyyi yu ma bokk ku sant su ma jógee ñu jóg kon dey dinaa defanteeg yéen ki ñu doon jàngal ne xam mu ne nenal jooju wax wax ju rafet la wante waaye bàkkaar la xam nga nitu ordinaire ku baax bu waxee lii wax na lu baax waaye ab yonent bu ko defee bàkkaar la loolu mu ne loolu mooy xasanaatul abraar sayyiaatul muqarrabin li ngeen ma def su ma amoon ñu ma àndal samay mbokk danaa dal ci seen kaw ndax baatu dëgg dem ca kaw wax dëgg lii aw yiw la waaye bu ko yonenti waxee nag loolu bakkaar la luy maanaam loolu ab yonente xaas la mu ngi weeru ci yàlla mu mel ni def ko fàtte naan euh, euh, law anna li bikum aw aawi ila ruknin shadid ban rukn moo nekk shadid ashaddu min allahi tabaraka wa taala loolu ci xaqu nabi ak wàññeeku la waru ko a wax waaye nag comme ñoom maasumoo na leen duñu mooy yàlla ñoom yonent yi kon wax jii mu ngi mel ni ñun la yàllay jàngal misaal la ñuy jox exemple rek lañuy jox loot sono na ci nitam ña woote na waaye naago na xam na ne yaakaaratut kenn du ko toppati admewut mënu leen a convaincre mënu leen a baye baloo ñawteef mu ne foofu nag fi la wéeru ci yàlla di ko ñaan pour yàlla nangul ko ñaanam foofu nag muy ñaan malaaka yi feeñu ko ne ko ñun du ñuy nit ay malaaka lañ foofu la malaaka yi ne léegi nañu topp waa dëkk bu yépp sëlëm leen jël seen loxo rek kuñ jël rek sëlëm ko kuñ sëlëm rek bët ya bakkan ya gémmiñ ga nopp ya yépp danaan mulum du amati sax pax ñu solom waa dëkk bi yépp ne ah lootu nag booye nga jéem a dem kat sekkil sa baay Ibrahima ak ñi la gëm ñii alku nañ mu ne kan kañ mu ne ëllëg rek ñu ne mu ne sori na ñu ne déedéet waaye alaysa subh bi qarib xaaral rek mu ne nii la alquran ne wa laqad raawaduhu an dayfihi fa tamasna ayunahum fa duuqu adabi wa nuduri mu ci suratul qamar aya 37 nii la ñu mar maralee xar kanami gaaña ci waxtu woowu nag ci la noo xam ne ñii ndekk ay malaaka lañ dañoo ñëw ngir alag leen gannaaw bu mu leen xam ne ne kenn du mucc ci mbirum malaaka loolu moo tax mu ne lu mooy koo xam ne gëm na moo tax alquran ne qaalu yaa lootu inna rusulu rabbika lan yasulu ilayka fasri bi ahlika bi qita'in min alleyl wala yaltafit minkum ahad wala yaltafit minkum ahadun illa imra'atuhu innahu musibuha ma asabahum inna maw'idahum as-subh alaysa as-subhu bi qarib فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد 80 سورة هود nee na waaye ba yàlla ne Huud ba yàlla ne loo Luut génnal dëkk bi dem ba mu dem ànd ak ñi mu gëm ñi ko gëm fekk marmaral na xar kanami waa dëkk bi yépp yàlla ne li ñuy def daal mooy dañu déqati suuf si rek la féete woon kaw déqati suuf si deme moom ba ca kaw ñu walbati rek la féete woon suuf féete kaw rek ñu ne ko këpp rek ñooy ñooy ñu ñu dëpp ña gannaaw ga ñu teg ci xeer yu jóge si jiin yu ñu rankale nii la yàlla eh, xeetu luut ci région boobu ñu nekkoon ñu xamee ko tey ci baxarul mayit mooy la mer morte mu ngi nekk ci am nañu koy tudde ba léegi bu xayratu luut waaye mujrimoona yi criminel yi kenn mucc ci ñépp rek amulam xët xataa jabaru lóot sax foofa la des la jot nit ñi jot na ko ndax itam li ñuy considéré di ko xalaat ci diina diine yàlla mooy topp ab yonent waaye jege ko ci deret nekk jabaram nekk doomam nekk baayam du jëriñ dara al mu'tabaru daal ci risalatullah mooy ittibaaw ittibaaw ma ata bihi min indillah ولا تنفع القرابة الدموية أو النسبية بل الامتثال بأمر الله واجتناب نواهيه قال تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنصاب بينهم يومئذ ولا يتساءلون من سورة المؤمنين آية 23 bokk na ci li ñuy jàngee ci xisa Luut ndeke ndeke kat jege ku baax te baaxoo du jëriñ dara ku baax jur la te te baaxuloo du jëriñ dara ku baax di sa jëkkër te baaxuloo du jëriñ dara ku baax sa jabar te yow baaxuloo du jëriñ dara ndeke jege ci wàllu deret ak askan kooka du jege du am njëriñ bu la neexee nga jege yonent yi bu la neexee nga jege wali yi ci deret waaye du la jëriñ dara dara bu fekkee ne baaxuloo fokk rek ngay topp yàlla yi bay tere ndax alquran a ngi naan bu ñu walee bufta bi askan amut duñ laajante bu askan amul na kon jege kenn ci askan du jëriñ dara loolu ñu mën a jàngee ci darsu bi la wa yuqaalu ay inna al azaab alladi nazala bi qawmi luut ibaratun an zilzalin jaala ali l ard malaaka yeen dañ koy yëngal jéqati ko rek mooy tremblement de terre rek suuf sa dugg ba suuf sa pëtëxee dugg beneen suuf ñëw féete ko kaw màggaat nekk fa ñoom dañoo pëtëx rek dem jaal na aliyaha safila alquran moo ko wax ay zilzal jaala aliya al ardi saafilaha wa saarat axfada min satxi albahri bi nawi 400 mètre docteur Nadiar Abdou Wahab Nadiar nee na suuf si daa pëtëx na suuf si tolloo woon ak satxul baxari ak géej gi ñeenti téeméeri mètre quatre cent mètres la pëtëx ci suuf loolu Abdou Wahab Nadiar wax fi kitaabi qissa al anbiya in al ulama qad iktashafu aathaara muduna qawmi luut xadisan bu yàggul rekk ulamaul géologie ñi nga xam ne ñoom ñooy dem di gas ñoom mujj nañu daj ay jeexit yu bokk ci nitu yonent yàlla lootu yooyale fekk nañ ko fa eh, for nañ ci yu bare bari ah, loo xam ne jeexiti ab dëkk la woon ñu ne lii day asaaru muduni qawmi luut la ñu ngi ko fekk ala xaafatil baxril majid ñu ngi ko fekk ca takkuk mer morte muy baxrul majid loolu ma ngi nekk ci Jordan ordon mooy jordan yi ci tubaab yi wallahu taala aalam mbokk yi ñuy déglu lan la ñu mën a jàngatee ci xisatu luut waaye lan la ñu mën a jàngatee ci xisa ibrahima alayhi salaatu wasalaam xisa ibrahima mën nga cee jàngatee ne ndeke baay kat baay bi la jur kat su gëmul yàlla topp yàlla du tax nga mën koo sobe doo ko yóbbu aljanna loolu jàngatee nañ jàngee nañ ko ci xisa Ibrahim ndax dem na banaan yàlla bàyyi danaa la ñaanal njëggal ndax yàlla ku baax la ci man waaye ñaan rek la ci yaakaar kon loola mën nga ko ci jànge wante xisatu lootu nag lan nga ci mën a jàngee li nga ci mën a jàngee moo di ne jëkkër ji baax te jabar ja baaxut du ko jëriñ dara ndax loo tëngu noonu jabaram alkuna ma ngi nar a jëm safara comme nam xalsee ñëw ci na mu ñëwee woon ci noox alayhi salaatu wasalaam alquran waxoon nañu ko ne aw léeb la imraata nuuxin wa imraata luutin kaanata taxta abdayni min ibadina saalihin fa xaanatahuma falan yugniya anhuma min allahi cheyan wa qila udxula annaara ma daaxilin jëkkër ju baax te nga bon du la teree dem safara jabar ju baax te nga bon du la teree dem safara kon loolu bokk na ci li ñuy jàngee ci qisatu Luut ak Ibrahim kon ëllëg ak jàmm euh, ñu song Isxaaqa alayhi salaatu wasalaam jëm ci yonent yàlla Yuusufa moom nag qisa bu neex bu doy waar la wallahu taala aalam jërëjëf Oustaz Assane Diouf jërëjëf ñi ñëpp ñi nga xam ne ñoo ñuy déglu yal na def ci nun dégg ak ku ci yéen wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bismillahi arrahmani irrahim wa sala allahu wasallama ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa saxbi mbokk yi ñuy déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu noo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel itam nag waaye di leen ñaanal jàmm di sàkku ci yéen fu ngeen toll ngeen di ñuy ñaanal jàmm xam ngeen ne noo ngi woon ci taarixul ambiya wala mursalin bëggoon koo def mu nekk tamhid lu ñuy lal balaa ñu àgg ci la vie et l'œuvre de Seydina Muhammad alayhi wassalaam muy dund yonent bi ak lañ ca mën a jàngee Euh, demoon nañ nag ba ñu ngi tàmbali tey ci yonentab juróom-ñeenteel bi muy Isxaaq ibnu Ibrahim waaye balaa loolu ñu ngi ñaanal ñëpp ñu feebar yàlla saafara leen ci anam ak wér ñi ci hôpitaux yi yàlla yëkkati leen ci anam ak wér di ñaanal ñi feebar te nekk ci kër yi itam yàlla yëkkati leen ci anam ak wér waaye ñu ngi ñaanal itam day way liggéey ñi nga xam ne dañuy kër kër yi ñoom ñëpp ku ci nekk yàlla yëkkati leen ñoom ñëpp ci anam ak euh, wér di ñaanal ñi xëy ak ñi kër kër yeeg ñëpp yàlla may leen te barkeel leen may mbokk yi ñuy déglu taarixul ambiya mooy histoire yi ñi yàlla yónni waxoon naa ne ñaar fukk juróom la ci alquran tudd te ñaar fukk ak juróom yooyu seydina muhammad alayhi salaatu wasalaam moom lañ ca mujj a tudd kon ngi toll ci juróom-ñeente mooy isxaqa alayhi salaatu doomi ibrahima la jabaram ji naan saarata moom ibrahim moo jur isxaq waaye isxaqa gis nga ba muy juddu fekk na yonent Yàlla Ibrahima am na téeméeri at te fekk na yaayam Sarata am na juróom-ñeent fukki kon Ibrahima mage woon na jabar ji Sarata fukki at lañuy la tuddee ci làkku Ibar muy làkku israélien yasxak yasxak yasxak li muy tekki ci arab mooy yadxak saat gi buñ ko tombee rek yadxak mu nekk arab waaye buñ ko tombul yes yasxaq mu nekk ibri loola li ko waral mooy yaayam yaayu isxaq te moo di sarata ba ko malaaka yi bégalee ne dangay am doom gannaaw juróom-ñeent fukki at dafa ree ree gi mu reen mooy day yéemu màggatam juróom-ñeent fukki jëkkëram am téeméeri at nu muy amee doom loolu moo tax ñu tuddee yaayam yasxaq ci làkku ibar mu yadxaq ci lakk arab bokk na ci doomu isxaq ambiyaaw bani israil yëpp boo yeboo nga ne ci lañ joge ka ci jiitu mooy taawam ba yaqub wax nañ ni isxaq dencul jabar ci banu kanaan waaye ma nga denc ca xaaraan ca iraq fa maamam ibrahima mujjoon a dëkk loolu moo tax uh, yaay ji ci ñooña la bokk yaay ji dafa daf ko denc ah muy doomu bu jigéen bu càmmiñu baayam ibrahim maanaa kon doomu bay taxam la ndaw sa isaq denc ma ngi tudd moom rufqata bintu taw il ibnu naxuur muy axu ibrahim naxuur ibnu azar la frère ibrahim la naxuur nag moo juróo taw il taw il nag doom bu jigéen moo tudd rufqata rufqa mooy jabaru ki nga xam ne moo waaye ba mu ko dencee seen eh, bi mu ko dencee soxna sa dafa jur ay siix eh, am na ñuy wax ñaari siix waaye ay seex rek la jur soo ne ci wolof ñaari siix mooy ndaw si dafa siix siixaat kon dugul ñaari siix waaye benn yoon rek la ay seex rek la jur siix yooyu nag ñooy isu isu ci siin moom la arab di tuddee iis ci sat iis ak yaqub ay seex lañ xam nga yonent yàlla ab seexandoor la doomu isxaqa seen yaay tudd rufqata ñu bokk ca xaraan ñu di sëtu naxuur naxuur di frère yonent yàlla ibrahim ñu dëkk ca xaraan ca iraq moom na nga yëg ne kon yaquba ab siixandoor la kañ ko siixandooral moo tudd iis la ko arab yi tudduwe israel yi naan ko iisoo ci siin arab yi ne ko iis ci sàdd kon iis ak yaqub ay siixandoor lañ la eh, eh, yaqub nag moom la ñuy tuddee israil ay abdullah ndax isra mooy abdu il mooy allahu ci làkku ibar wax nañ ne wax nañ ci alquran ne isaaq yónent la alquran mënu ko wax wax nañu itam ne du yónent rekk de waaye ku yiw la jàng nañ ci alquran ne yàlla bégal na ah, ibrahima ci doom ju tudd isaaq def ko mu yónent bu yiw te yàlla barkel na mbiram barkel na mbiram isaaq itam doomu isaaq yi nag moo am ñu baax ba jub waaye ñoo am ñu bon bay tooñ seen bopp tooñ yoo xam ne yu biir la loolu mooy banu israil alquran a nga naan wa basharnaahu bi isxaqa nabiyan min alsaalixin wa baarakna alayhi wa ala isxaq wa min duriyatihima muxsinun wa dalimun li nafsihi mubin 112 la suratu alsafat yonent yàlla Isaaqa alayhi salaatu wasalaam gis nga moom dund na téeméeri at ak juróom-ñaar fukki at téeméeri at xam naa àggul ci dundu maamam Adam muy ñaari téeméeri at gis nga nit ñu jëkk ñu niñ daan guddee aw fan loolu nag taqaarubu zaman ak jamono ni muy jege di jege di jege na jëm ci jeex moo tax dund nit ñi di wàññeeku waaye Isaaqa mi cent soixante dix ans la dund nii la ko histoire nettalee wala waala yonente fukkeel bi nag kon ñu ñëw ci muy doomu Isaaqa muy Yaquub alayhi salaatu wasalaam Yaquub doomu Isaaqa la Isaaqa doomu Ibrahima la Yaquub wax naa moom lañ doon tuddee Israil ay Abdallah loolu dawee woon na ca nan ko waxoon ca gannaaw Isaaqa nag ku bëggoon Yaquba la bëggoon na ko lool moom la gënoon a bëgg ci mbokk mi ñu ne Iis dara waralu ko la mooy jikko ndax euh, Yaqub moo ëppoon ab yar Yaqub moo gënoon rafet jikko loolu ma waraloon comme ay seex lañ ñu gën a bëgg a seexandoor bi ci moom ndax jikkoom ak melokaanam loolu tax na ak noonoo xewoon na ci seen diggante ñaari mbokk yooyu nga xam ni ay seexandoor lañ waaye nag Yaaqooba ku bëggoon jàmm la Yaaqooba mësul bëgg aw ay moo tax mës naa tukki seeti ay nijaayam ca Irak ngir noppalu rek noonee gi ko seexandooram bi di noonee foofa nag ba mu demee Iraq moom it la denc foofale doomu benn nijaayam liata ak rahil loola loola nekkoon na sunna boo xam ne ci seen sharia amoon na nit ku nekk bayut jabar sa nijaay mën na laa may ñaari doomam buñ bokkee ndey ak baay buñ bokkee bàyyi ci yam moo tax tax na Yaquba ma nga denc ca Irak ñaari doomu na jaayam muy li ata ak raxiil loolu wax naa sunna la aw yoon la woon ci seen sharia gannaaw juróom-ñaari nag dafa ci ñaari gune yooyu toog fa ci kër na jaayam ba mu fa toogee juróom-ñaari nag moom yàquub bëgg naa ñibbisi nag ci Palestine ah na ne ko xaaral mu mayaat la mu mayaat la Ah, ay jaam bu jigéen maanaam sa ñaari jabar yi nga xam ne maa leen jur man sa najaay dama bëgg jabar ju ne ma may ko benn jaam bu jigéen mu koy liggéeyal kon denc na lii attaque raxiil doomu najaayam waaye najaay ji itam far na ko mayaale ñeneen ñaari jébéer ndax doom ju jigéen ju nekk am ku koy liggéeyal waaye xam nga lu yàqu ba defam dafa mujj dencaat ñaari jébbéer ya muy ñeenti jabar rek léegi dal na am ñeenti soxna ñaar yi ko na jaayam may muy doomu na jaayam ak ñaari jébbéer yi na jaayam may ay jabaram jébbéer yooyu xam nga nu ñu tudda zalfa ak balha kon jabar yaa ngi tudd lia ak rahil ñaari jébér yaa ngi tudd zulfa ak balha kon yaqooba mujj nay am ñeenti jabar ñaari jabari gor ak ay jébér lia nag muy jabar ju jëkk ja kooku moo jur obiin ak shamuun ak lawi ak yahuza ak yasakir ak zabloon jabaru ñaareelam ba muy raxiil bintu labaan ñoom ñëpp la seen jaay seen baay mooy labaan raxiil moom itam moo jur yuusuf ak binyamin ma waxaat ko ñaari jabari gorya doomu najaayam ya kon najaayam labaan mayoon muy lii ata ak raxiil ñoo jur doom yu mag yile lii a aaw bi moo jur rabin ba léegi yahud yaa ngi koy ñoo jur Chamuun ba léegi ñu ngi koy tuddee ñoo jur Lawi ñoo jur Yahuza ñoo jur Yasakir ñoo jur euh, Zabloon muy juróom-ñaar jabaru ñaareelam ba Rahil bintu laban ba tey moo jur Yuusuf ak Binyamin muy juróom-ñeenti doom te doom yi yemuñ foofu kon nag ñu seet taara yi ñan lañ jur aljariyal ula muy Balha balaa moo jur daan ak naftaali beneen jébér ba a ah, bu fekkee lee juróom-ñeent la kon fukk ak benn ñëw na beneen jéebéer ba nag muy zalfa moom moo jur jaad ak ashir ñu di fukk ak ñaar ñoo ñooy doomi yaquba ya nga xam ne ah, ba ñu réere it ànd ak Moussa dafa leen taxawal fukki boor na fontaine ak ñaar muy itna achara aynan banaan qad alima kullu unaasin mashrabahum fukki doomi ak ñaar yu yàquba yi ñëngu liata aaw bi jur na juróom-ñaar raxiil ñaareel bi jur na ñaari doom balaa benn taara bi jur na ñaar muy daan ak naka noonu zalfa beneen taara bi jur na jaad ak achir ñeent ak ñaar ñaar mu nekk juróom-ñett soo demee boole ko ak juróom-ñaar yooyu loolu moo di doomu yaquba yi booba nag la yaquba jóg dem sañ ca dëkk fu ñaan xabroon xabroon la ñuy tuddee tey xalil yi nga foofu ñuy tuddee alxalil xalilu rahmaan foofa mu ngi tuddoon xabruun yaqubu moo ko sañ sañ ca këram foofa fa lañ suul yonteele ibrahim foofa fa lañ suul yonteele isxaqa alayhim salaam kon xabruun moom la ñuy tuddee tey xalil ñenn ñu ne xalilu rahmaan ndax xaritu yàlla bi ibrahim fa lañ ko suul ca Palestine am na la ñuy tuddee asbaat loolu firikati alquran yëpp dañ koy wax mooy sët yi lañ koy wax ñenn ñi ne giir gi asbaat bi ñu tuddee ci alquran ñooñu ñooy doomi yaakoba yi fukk ak ñaar ndax surtout ci arab mooy doom wala doomi doom doom wala sët sibtu la ko arab di wax waaye sibtu nag ci yahuud ustaz Afif Tabara nee na Eh, ci arab ma ngi mel ni qabila ak giir ci arab mooy ñëpp ñi nga xam ne soo leen taggee bu yàggee ñu dellu ci benn baay ni ci bani israel yi yëpp boo leen taggee ñu ngi jóge ci doomu yaqub fukk yeeg ñaar mu ne loola moo tax ñu ko leen tuddee asbaat lii la tabaara wax bokk na ci seeti yi te xamoon nga ne laaw yi Euh, xamoon nga ki ko jur waxoon na ne laaw yi awo yaaquba ko jur sëtu laaw yi nag euh, yi nga xam ne moom lañu ñu tuddoon ñoom laaw yi ibnu yaqub sëtu laaw yooyu ci la yonent gi rekk di nekk nag ndax ci la daawuda nekk ci la suleymaan nekk ci la zakariya nekk ci la Yaxya nekk ci la Isa nekk ñaareelu jabaru Yaqub te waxoon nañ la ko léegi te moo di Rahil bintu Laban mu ñaareelu jabaru Yaqub kooku moom it moo jur Yusuf ak Binyamin surtout Binyamin nag ci ñoom lay ay yonent yeneen feeñ Yunus ci la bokk loolu moo tax alquran di ñu wax naan wa jaalna fi duriyatihi an nubuwata wal kitaab wa jaal naa fi duriyatihi an nubuwata wal kitaab kon doomu yaquba yi wax nañ ci alquran al karim alquran nettalil nañu ci sadi lii laa jot a boole ci yaquba wallahu aalam